Boubacar Sarr sëñ bi ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna Elisabeth. ngay secrétaire euh, général bu syndicat démocratique euh, liggéeykatu CMS ñu dégg leen boobaak léegi euh, ci ay coow yu bari ñu bëggoon a xam lu xew. jërëjëf soxna Elisabeth ginnaaw bi ma la nuyoo nuyu sa ay téléspectateurs ak say auditeurs. Mhm. man maay effectivement Boubacar Sakho di ci amee kàddu délégation mixte délégation mixte mooy kuréel bi nga xamante ne moo ëmb ñaari organisation syndicale yi nekk Crédit Mutuel Euh, jataay bi dina ma neex ndax dina permettre seeni auditeur ak opinion sénégalaise mhm. ñu comprendre dëggantaan lan moo xew CNS mhm. ndax li coow li bari yëpp syndicaliste waxuñu lenn loo xamante ne génn na ci gouvernance mhm. maanaam yorinu crédit mutuel du Sénégal kër goo gis dafa am ay charte yu ko tënk crédit mutuel munul ci loolu munul nekk exception charte yi tënk crédit mutuel du Sénégal mi ngi tudd statut de l'union des caisses de crédit mutuel du Sénégal mhm. ci article ci ponk quarante deux dafa ni directeur général du crédit mutuel du Sénégal conseil d'administration mooy ci am sañ-sañu tàbb ko mhm. te bu koy tàbb ci mandat wu ñetti at la boo xamante ne sañ na ko yeesal benn yoon su dee liggéeyam rafet na mhm. Amadou Sankar Diop nag faaw ñu dellu tuuti ci taarix pour que seeni auditeurs comprendre ndax ci atum ci atum deux mil dix sept mhm. crédit mutuel yor nañ ko ci yorin gu ñaaw woo xamante ne état du Sénégal dafa jël ay responsabilités ne kër gi kat su ma ko bëggee sàmm bëgg aar liggéey yi bëgg bëgg aar alalu sénégalais yi bàyyil ma delloo ko administration provisoire mhm. administration provisoire mooy instance yi fi nekkoon CA CS directeur général ñëpp laay dindi ma jël benn nit ko xamante ne maa koy tàbb man état du Sénégal mu jiite kër gi defaraat yi fi ci anam yooyu la Mamadou Ndiaye ñëw yàggu fi mu dem Aliou Ndiaye wutu ko def fi li mu fiy def mu wutu ko ki ki ko wutu di Amadou Jean Jacques Diop ki ki euh, Mbaye Dione mhm. waaye Mbaye Dione ba muy dem dafa tombé administration provisoire war jeex le 30 juin 2019 à partir du 1er juillet 2019. Mhm. crédit mutuel dafa waroon am directeur général ak ay instances régulières maa ngi leen di fàttali ne dañ ne boo koy tàbb da koy tàbb ci mandaaw gerte at bu ñu mën a yeesal benn yoon. Mhm. waaye Mbaye Dione bi muy nommé Amadou Sansokh Diop daf ko defal contrat à durée indéterminée mooy lan mooy giiru dundu Amadou Sansokh Diop mooy jiite crédit mutuel du Sénégal. d'accord mu di une première violation. Mhm. ci biir contrat de travail yu Amadou mu dugal ci benn ponk boo xamante ne dafa ne bu ñu ko dàqee sax dañ koy fay quatre vingt seize hmm. ci alalu sénégalais yi mu nekk indécence indécence boo xamante ne kenn mënu ko tudd te may fàttali sa auditeurs yi ne hmm. crédit mutuel hmm. un million trois cent mille clients la ñu fi am compte si ñun mille deux cent travailleurs waa loolu ñun war nañu mën a sàggan di xool koo xamante ne teguwul ci dëgg nekkul ci yoon légalul légitimul di poser acte yu ni mel xanaa sax par décence waroon nangu di dugal genre clause yooyu ci sa contrat de travail mhm. te amee alalu alalu alalu néew di doole yi dëgg la ñu yaakaar ne doy na Amadou Jean Jacques Diop dem indi benn informaticien di ko fay soixante quatre millions huit cent ci benn contrat de prestation dix huit mois te ci dix huit mois yooyu ñaari fan lay xëy par semaine waaw loolu rafet ñu yaakaar ne doy na amul xanaa jóg fa lay yëpp amul xanaa jóg di xuus rek hmm. di ndax direction de la réglementation hmm. mooy càmbar ak saytu liggéeyu mutuelle yëpp ci Sénégal ban xaasu état bi la ñu ngi dépendre ci ministère des finances hmm. direction de la réglementation dafa bind bataaxal ci novembre deux ci décembre deux mille seize dafa bind ne crédit mutuel xeetu crédit bi ñu duppee crédit consortial bàyyi leen di ko def kon autorité publique moo interdire loolu Amadou Sanchez Diop ban dëgër laay la war a am rek ba sañ des crédit wu six cent millions de francs ci crédit boo xamante ne interdire nañ ko déjà moom mu sañcee def six cent millions jox ko benn nit Bimao sunu sunu filiale la mhm. moo nekk ci VDN bi mhm. Bimao di jaay terrain am na ci sañ-sañ ndax banque la personnalité indépendante mu ngi jaay terrain am ku bëgg terrain bi kooku pare na pour fay cash Amadou Cheikh Diak Diop jëlee fa benn xaritam ne ko kaay soumissionné kaay soumissionné may fàttali seen auditeurs yi ne Bimao crédit mutuel moo ko moom à quatre vingt six pour cent kon am nañ fa kàddu mm-hmm. mu ne mu ne am naa fa benn waaye boo xamante ne bëgg naa jënd terrain bi te li muy fay moo ëpp kii indi nii ci li mu indi nii. ñu ne ko ñaata la indi mu ne huit cent vingt cinq millions pare na pour jëndee ko terrain ñu ne ah kon baax na léegi problème bi mooy. parce mhm. que problème mooy problème bi mooy waa ji amul xaalis bu mu fayee loolu tout suite. fu koy jëlee. daf koy dem leb crédit mutuel bi Sénégal wala yow loolu yenu na maana loolu yenu na maana rek mu dem ñu lebal ko crédit boo xamante ne c'est interdit loolu mooy indi mooy indi coono. loolu moo indi li six cent millions mu jox ñu jox ko nit kooku mu am benn xaritam bu mu fi jox ko crédit wu cinquante millions waa ji fayul dërëm. moom xanaa ay mbiru xarit rek a ciy dox moom. mais mais loolu loolu loolu mu si sax ci ci révoltant alors mu indi benn xaritam jox ko crédit wu cinquante millions waa ji fayul benn koppet fifteen fayul ko ci ñu yeesalaat crédit ba jox ko cinquante neuf millions waaw ku la fayul cinquante millions soxna Elisabeth dana la fay cinquante neuf ku la fayul cinquante millions dana la lebal dana la fay cinquante neuf millions bu nu caaxaanul alalu crédit mutuel alalu travailleurs yi alalu alalu baykat yi alalu jaaykatu caaf yi ñii nii lañu ko sàmmee te ñii kat dañ ñoo wóolu jox ñu seen alal nañ sàmm leen ko fulal leen ko. d'accord waaw te wolof dafay ne dafay ne ku ñuy xaar nga defar boo dee yàq yaakaar jeex. Mhm. te kii jóg kii defar daf ko taxul jóg sax te lan loolu kat. ku ci kaas mu la tey ma la. ah parce que dafa am ay intimidation ci seen xeex gi nga xam ne tàmbali ngeen ko rek la def alors donc ci taarix maa ngi wax ne crédit mutuel 1988 ba 2022 kenn mosu fay donc yéen xamu leen woon sax luy grève xamuñu grève loolu moo tax sax ñun ñi ko jiite sax xam naa dañ naan ñii sax ay extraterrestre lañ 88 ba tey jii jëmmi euh, maanaam ñu nekk 2022 euh, crédit mutuel lépp lu leen metti da ngeen koy toogaale daal noppiwaale ko da mm-hmm. boo ko boo ko waxee ñu dax la mm-hmm. ñun dañ ne peu importe li mu bëgg a def waaye lu dul dëgg dinañ ko dénoncer. d'accord te dénoncer nañ ko nag fañ ko war a dénoncer. ngeen nekk ci yoonu dénonciation. Euh, wax nga ko sànq le waaw ñu sumb grève. Mhm. yàlla def nag muy réussite bu mag. Mhm. te le douze boobu. ca veille ba le onze yebal na ay huissier ci agence su crédit mutuel yëpp. Mhm. pour tiital agent yi. bu ngeen demee dañ leen di dàq dañ leen di affecté dañ leen di ku nekkoon Dakar dañ leen yóbbu Tamba dañ leen yóbbu Ziguinchor xale yi commencé tiit. loolu moo tax ay naataango yu may interpellé hmm. ni est sen que seen bi suivre nañ ko ma ne leen deet bu leen wax na suivre nañ ko c'est une grève très suivie ndax agence boo xamante ne tey dans le réseau plus de cinquante points de service ont été impactés mënoo wax ne pour une première c'est pas une réussite d'accord dafa fees dafa topp di xaw xatal agent yi bi mu déggee ne dañuy grévaat les vingt sept vingt huit et vingt neuf mooy weeru janvier gi ñu nekk waaw naka suba hmm. mu mu convoqué travailleurs yi ne leen kaay leen Dakar dinaa woo journaliste yi ma photo ak yéen jox leen kàddu ngeen expliqué parce que man jotaay boobu quelque presque noonu rek laa laa ko gisee. d'accord. Euh, euh, donc na préparé na dajale agent yi lan la leen fay wax mënu leen wax lu nit xam lu dul pour autorités yi yaakaar ne kat ah Amadou Jean Jacques Diop kat amul benn problème CNS ndax travailleurs yi moom lañu ñu àndal. tey yi am lu ñu ak moom. wax nga ko sànq ci suñu waxtaan euh, nasaraan ne yéen saisir ngeen autorité bi waaye la ngeen ci am comme tontu doyu leen. dafa dafa dafa dañ ko ko ñaawlu. nan la demee nan la demee justement ci ban anam ngeen ko saisiree. dafa mel ne xaste sax ndax ñun bu ñu gisee ci suñu kër. Mm-hmm. nii Amadou Jean Jacques Diop nañu ko tàbbee baaxul. Mm-hmm. crédit yi nga xamante ne moom interdire na ko moom autorité bi de. bi mm. ñu saisir. muy kan exactement direction de la réglementation et de la supervision des SFD. mooy gendarme du secteur. Mm-hmm. alors bi ñu demee ba ci moom. Mm. ne kat ah ñun kat fan yi bu soobee yàlla dañuy bëgg euh, conférence de presse. dénoncer yi nga xamante ne wax nañ leen la ko par wax nañ la ko par courrier. mu wóoruñu ne ñu bu leen conférence de presse. Mm. ndax bu ngeen conférence de presse da di yëngal secteur bi te hmm. secteur bi soxlawul yëngu ñu ne ko ah léegi nag yow bu lu ci tege parce que ñun ñëw nañu fii def suñuy kaar nangam ak nangam bind ay courrier mu ne mu am naa moyen ngeen ba may ma ma wax ci tubaab parce que dafa ne nous avons les moyens de savoir s'il y des gens derrière ah kon dañ leen doon intimider daal en quelque sorte. merci dem di di di waaw di. ba mu waxee mhm. ma ne kii dafa ñàkk pédagogie directeur de la réglementation dafa ñàkk pédagogie ndax boo amoo amoon pédagogie nit ñëw nga càmbar njaboote ñëpp war càmbar li muy wax boo ko dëggal waaye bu ko weddi nga ne ko kat ak yëggat may leen ma man maay ci yor euh, surveillance mu secteur bi may leen ma ma dem xool seen kër gi la ciy dëgg ak la ci dul dëkk ñu xamee ko noonu mais déedéet daf ñu ne il a pris dafa dafa maanaam moom dafa far déjà moom far na waaw wane na fi mu far ñun wane na suñu xar dafa ne nous avons les moyens de savoir s'il y a des gens derrière vous maanaam ñun dafa am ku ñu yebal pour ñu déstabiliser institution bi mooy lay fàttali ne fukki at ak juróom def naa ko ci kër gi na ñu fi def trente ndax ñun am nañu intérêt kër gi am na ci intérêt mhm. la ñuy wax demal nga càmbar li ci dëgg nga ne kat ah yéen kat li ngeen wax ni dëgg la wala li ci dul dëgg ngeen ne yéen kat da ngeen a comprendre waaye lii du dëgg loolu loolu xel nangu na ko mhm. waaye boo ne am naa moom directeur de de de la réglementation la de mu ne mm-hmm. am na moyen auditionner mille trois cent ko jaree. ñuy ñuy kaas il dit au besoin au besoin naa auditionner mille ñoom am na am na ñu leen sut na ñu mooy ministère bi nga xam ne moo leen boole yilif ah, ndax ñoom réagir nañu wala yéen a leen saisiratul waaye tamit mbir mi du xaar ba saisir ba leen am parce que coow li yàgg na. waaw xam nga euh, mënuloo kilifa da koy jox da koy jox wàccuwaayam rek. d'accord euh, su fekkente ne bind nga dénoncé yuuxu nga ci télé yeeg rajo yi ba tey Sénégal amul ku coowal crédit mutuel ump tey te li ci doy mooy tey bu kenn deful dara mille deux cent sénégalais ñooy dem au chômage un million trois cent mille clients à carreau te loolu ñaaw na. moo tax ñu ne ñu jóg ba ñu waxee direction de la réglementation defu ci la mu ca war a def bind nañu ay courrier ministère interpellé ko am nañu yaakaar nag ne ginnaaw bi ñu defee une première grève les douze et treize fas yéene ko dàbbali suba gannaaw suba gannaawaat suba incha allah c'est ça yaakaar nañ ne état du Sénégal dina réagir moo tax may profito ci seen émission bi di interpeller Abdoulaye Daouda Diallo ministre des finances et du budget du Sénégal Euh, monsieur Sarr na wax ci mhm. na wax ci li li xew crédit mutuel du Sénégal. Mhm. bu ci kenn deful dara kër gi ci suuf la jëm. may interpellé au delà de Abdoulaye Daouda Diallo. Mhm. di interpellé le président de la République Macky Sall. di ko xamal ne bu kenn deful dara Amadou Jean Diop rien que pour ses intérêts dina suuxal crédit mutuel. te bu boobaa kenn du wax ne yëguma ko woon. ci suuxal googu ndax ba coow li tàmbaleek léegi am na benn impact ci déroulement bi maanaam ci clients yi sociétaires yi dañoo bëggoon a xam daal. en fait ku xam crédit mutuel ni mu doon doxee daaw. Hmm. ak daaw jéeg bon je vous dis daaw c'est pas par rapport ak. je sais ak moom ah, voilà hmm. donc bu njëkk ni crédit mutuel doon doxee tey doxewul noonu. je comprends que ku ñëw ne man damay damay implémenter benn sama système bu mais damay bëgg boo dee implémenter sa système bopp na ko dëgg lal ndax kii fi nekk tey mënul wax ne defkatu dëgg la parce que dëgg lalu ko fi dëgg bàyyiwu ko fi li ñu ñëkk a dénoncé au-delà des faits de gestion mooy légalité waaj <laughs> parce que maa ngi xamal sa auditeurs yi ne ki nga xamante ne li nga nekkee du dëgg mënoo teg luy dëgg ndax li ko tàmbal du dëgg laytaay bi du dëgg mënul jëf luy dëgg te noonu rek la Amadou Jean Jacques Diop nag jël na fi ay décision yu doy waar yoo xamante ku wax mu dàq la te moom moo gën a jubadi <laughs> lépp lu lëndam tudd nañ ci Amadou Jean Jacques Diop <laughs> Boubacar secrétaire général syndicat démocratique des employés du CMS ñu lay jaajëfal bu baax a baax jërëjëf jërëjëf soxna Elisabeth